ñu ngi ak euh, docteur Babacar Gueye directeur de la lutte contre la maladie ci ministère de la santé et de l'action sociale docteur ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. jërëjëf soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. docteur tey la octobre rose di tàmbali muy campagne bi nga xam ne da ngeen ko jagleel sensibiliser euh, ci cancer yi surtout cancer euh, du sang ñu bëggoon nga ñëwal ñu d'abord ci campagne bi ni muy tëddee ak jubluwaay bi lan ngeen ciy seenu. Euh, ñu ngi lay jaajëfal di remercier di la gërëm effectivement euh, ñu ngi si euh, ñu ngi jublu si campagne bu nga xam ne bu am solo la ci wàllu xeex feebar bi ñu woowee cancer notamment cancer du sein donc Octobre Rose loolu moo ko tax a jóg gën a dëgëral gën a màndargal gën a dafay activité pour xeex cancer wu ween yi donc su ma nee activités yi mooy wàllu sensibilisation pour gën a yee askan bi ci wàllu naka la ñuy moytoo feebar bi mais surtout euh, naka la ñuy defee euh, dépistage parce que kat euh, fii si suñu réew yi dañu yaakaar ne que ni cancer suñ ko amee rek dañuy def cas cancer ak faatu ñoo ànd mais dama bëggoon d'emblée préciser que ni cancer feebar la comme feebar yëpp donc nit ni muy amee sibiru wala ni muy amee tuberculose wér si sibiru wala wér si tuberculose noonu aussi lay amee cancer du sein mais mun ci wér maintenant pour que nag euh, mu mën ci wér foog ñu teel a gis euh, jàngoro bi foog ñu teel a gis feebar bi loo moo tax euh, dépistage bi da si am solo bu bëri bëri bëri loolu moo tax ministère de la santé de l'action sociale ak partenaire am ak organisation de la société civile octobre bu nekk day dafay activité di gën a yaatal wàllu yeete bi yaatal aussi wàllu dépistage bi alors campagne bi euh, naka ngeen ko ndax amale si si atum ren bi ak Covid 19 bi. ok très bien campagne bi dina démarrer euh, le 2 octobre incha allah euh, le 2 octobre monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mooy def euh, mooy présider lancement officiel bi euh, fële ci cent de santé bu yëmbal à partir de à partir de 10 heures donc. suñ ko lancé ba pare dina am ay activités yu bëri euh, en tout cas fépp ci réew mi nga xam ne ci wàllu dépistage la si wàllu euh, sensibilisation euh, si cent de santé yi si poste de santé yi si établissement public de santé yi pour que jigéen ñi ak askan bi ñu yee leen ci wàllu cancer boobu mais surtout Euh, am na benn euh, jumtukaay ba nga xam ne ñu koy jëfandikoo pour mën a teel a gis euh, jàngoro cancer boobu cancer ween bi mooy mammographie donc kilifa ga nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale joxe na ndigal ñi nga xam ne ñooy directeur structure yi nga xam ne am na mammographie pour que mammographie ba nga xam ne mu ngi doon jar diggante euh, trente mille ba soixante mille euh, ñu def si benn subvention boo xam ne si octobre bi yëpp incha allah euh, dinañ ko defee si ñetti junni. donc loolu dina am si si si si région yëpp mais fàttali que ni tey si Sénégal soo jëlee fukki région ak ñeent yi. Euh, fokk ak benn yi am nañ déjà euh, appareil mammographie te ci yenn gox yi sax commencé nañ am def ay appareil mammographie si centre de santé yi peut ñetti région ñoo amagul mammographie te loolu euh, nañ si nañ si pexe ci fan yi ñu ñëw incha allah wala si ay bis yi di ñëw mooy Kédougou mooy Kaffrine mooy Sédhiou am na ay hôpitaux yu bees yi nga xam ne nañ ko réceptionné dans les mois à venir incha allah te seen équipement nañ si boole. Euh, après mammographie boobu pour que mu matale ci ci réew mi. te particularité campagne bi mooy nekk euh, situation mbas mi ak xëy na ay coppite yoo xam ne di ngeen ko si indi. waa mbas mi moom dafa am benn défi bu am solo boo xam ne euh, sooy xeex mbas si réew da nga ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy naam ñi ngi xeex mbas mi pour que ndetteel bi wala pour que mbas mi feebar bi bañ a law ci réew mi mais aussi am na ñeneen as ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si askan bi te mbas mi sonalul leen te feebar bi sonalul mais am na yeneen feebar yu la sonal notamment cancer donc loolu défi la li ñuy wax si nasaraan continuer de service mooy ñu continuer liggéey si mbas mi maîtriser mbas mi mais aussi ñeneen ñi nga xam ne am na ñeneen jàngoro ñu toppatoo leen bu baax donc rawatina euh, jàngoro cancer donc nañ continuer organiser sensibilisation et dépistage bi mais comme nuñ ko nuñ ko nuñ ko diglewee euh, mesures barrières yi ñu ñu respecté ko notamment euh, takk masque saa su ne donc même suñuy organiser dépistage ñu mën respecter distanciation takk ko de façon euh, rigoureuse et de façon correcte. justement mbas mi andi woon na euh, gàllankoor su ma ko mënee waxee noonu euh, c'est prise en charge bi nga xam ne moo soxal surtout ñi amee jàngoro cancer ci ndorteel gi est-ce que mën nga ñëwaat ci jafe-jafe yooyu ak tey fan ngeen ci toll. waaw mbas mi indi na jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy am yenn jàngoro yi notamment maladie chronique mais loolu biñ si dañ siy jóg si si teel. nañ si jug si teel pour mën si indi saafara donc bu njëkk bi mooy euh, ci wàllu cancer notamment am na ñu nga xam ne si euh, goggu xaat yi dañ doon jóge pour ñëw seen rendez-vous fii ci dakaar mais euh, biñ si amee jafe-jafe buñ ko waxtaanee ak suñu kilifa yi moom mu jox instruction ñi nga xam ne autorité administrative yi gouverneur préfet yi pour que képp ku nga xam ne am nga si rendez-vous a ñëw fii si bërëbu fajukaay ñu yombalu la ko te je pense bu ñu defee loolu euh, am na ay njeexital yu yu yu am solo pour que nit ñi mën na ñëw di faju si benn bi mooy euh, ñi ci seen bopp. Euh, dañ doon am tiitaange ci ñëw si bërëbu fajukaay yi donc yaakaar ne soo ñëwee si bërëbu fajukaay rek mën nga ko fa jëlee feebaru Covid 19 bi alors que c'était pas le cas donc loolu moo tax ñu action sensibilisation yi wax leen que ni mën ngeen continuer ñëw di faju wax aussi waa kër ña nga xam ne ñuy jiite kër docteur yi. ñu defar benn circuit de telle sorte que euh, ñu ñu ñu ñu euh, mu am benn benn amoindre risque bi ba nga xam ne mun nga ñëw si hôpital bi ba génn fa te euh, doo jotax dara la nga xam ne mooy mooy Covid 19 bi. aussi am na benn aspect mooy téléconsultation wala yónnee ay message ay wax sa médecin mu yónnee la. Euh, sa ordonnance par WhatsApp wala à travers les les les technologies de de de l' information euh, beneen jafe-jafe bi nga xam ne aussi amoon nañ ko mais teel nañ ko saafara mooy gis nañ ne euh, ci ndorteelu épidémie bi dañu defoon restriction mooy dañu wàññi woon dama dikk bi dëkk ak dëkk te am na garab yoo nga xam ne bitim réew la doon jóge donc loolu aussi pharmacie nationale d' approvisionnement def na si liggéey bu am solo pour que ñu mën am garab yi. Euh, niñ ko niñ ko soxlawee donc am na benn saytu boo xam ne si ndoxteelu épidémie bi def nañ ko euh, ñu gis ne amoon na cinquante pour cent disponibilité mais PNA bu mu jëlee jumtukaay yëpp euh, loolu amélioré wu na ba nga xam ne si anticancéreux yi am nañ lu ëpp 80 pour cent de disponibilité ci réew mi. d'accord léegi ñu ñëw si jàngoro cancer tolluwaayam ci Sénégal fan la ko mën a nat. waaw jàngoro cancer ci estimation nga xam ne. jot nañ ko am euh, at bi ñi ngi xaar que Sénégal mu am euh, fukki junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent cas cancer. ma cancer yëpp yu bees waaw. mais euh, soo jëlee cancer du sang ñi ngi xaar am si si si cancer ween boobu junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk cas yi nga xam ne yu bees la mais mën nañ jàpp que ni Sénégal daal cancer moom suñ ko waxee mën na laal. organe bu nekk mais cancer bi ñu si ñëkk gën a ràññee en tout cas ci ci ci ci li ñu xayma ci li ñu saytu mooy euh, premier cancer bi cancer du sein le deuxième cancer bi cancer du col de l'utérus moo tax nguur gi dafa taxaw temm pour xeex cancer yëpp mais particulièrement cancer yooyu nga xam ne ñooy gën a sonal askan bi ñu gën a sonal suñu jigéen ñi. lan moo waral seen bëriwaay ñaari cancer yooyu. bon cancer yëpp de façon globale. Euh, dafa bokk si li ñuy wax benn groupe benn groupe bu feebar benn groupe bu feebar ba nga xam ne ñu ngi leen ñu woowee si nasaraan maladie non transmissible maladie non transmissible euh, chronique mooy feebar yi nga xam ne dañu dëxkiis dañu wàllante donc ñooñu dañu am euh, dénominateur commun mooy da nga dañu am lu ñu nduróo lu ñu loo xam ne ñoom ñoo ko bokk muy facteur de risque yi donc facteur de risque yi mooy ci wàllu sédentarité mooy nit toog bañaa tàggat sa yaram ci wàllu lekkin bi donc lekk ba nga xam ne sellul euh, lekk xorom bu bëri suukar su bëri diw bu bëri bi euh, ci wàllu aussi tabagisme tux bi donc loolu aussi bokk na ci ci ci ci facteur de risque yi ci wàllu aussi euh, usage nocif d'alcool jëfandikoo sangara ak pollution atmosphérique donc loolu yëpp soo ko boolee day entraîner recrudescence Euh, maladie non transmissible yooyu te maladie non transmissible yooyu soo ko déggee euh, cancer bokk na si maintenant cancer du sein tamit am na ci euh, ci ci ci benn benn benn benn pàcc ay ay aspects génétiques yi nga xam ne wala ay aspects héréditaires yoo xam ne mun na tax nga gën a am risque pour am. ñu doon nante ko d'accord euh, léegi prise en charge bi tamit mooy euh, beneen jafe-jafe bi ci wàllu cancer chair na euh, sànq xëy na jotuñu ci wax mais bokk na ci li tax ñu bëri duñu dem ci structure de santé yi teel xool seen yaram mooy dañuy njoxtu loolu ba pare jàpp ne bu ñu demee xëy na beneen problème lay nekkaat parce que amuñu lu ñu fajoo lan la état bu Sénégal def ci wàllu prise en charge pour dimbale askan bi. waaw prise en charge bi cher na mais xam naa da wax cheroon rek. parce que jàpp nañ ne que ni en tout cas pour cancer du sein effectivement prise en charge bi euh, maladie chronique yi li la ñu woowee si nasaraan mooy ce de des maladies à soins donc faj bi dafa cher mais quand même nguuru Sénégal euh, tey en tout cas ci wàllu cancer du sein ak cancer du col de l'utérus euh, mën nañu wax ni prise en charge bi cheroon na mais cheratul léegi cheratul léegi dans la mesure où soo jëlee je parle du traitement ah soo jëlee chimiothérapie Euh, dafa gratuite donc dafa gratuite fii si Sénégal donc dafa gratuite pour cancer kenn dootu ci fay dara kenn dootu ci fay dara pour ñi nga xam ne am nañ cancer du col am nañ cancer du sein bépp sénégalaise fii ci biir Sénégal nga xam cancer du sein ak cancer du col xeetu garab boo mën a jël schéma thérapeutique bi ñu la mun mënti jox am na ñuy wax thérapie ciblée si nasaraan doo ci fay euh, doo doo ci fay dara te loolu démarré nañ ko depuis octobre 2019 euh, ci instruction wu chef de l'État maintenant bi ñu ko commencé ba léegi mën na la jox exemple que ni euh, lu toll ci junni ak juróomi téeméeru jigéen bénéficier wu nañ si te ci jigéen ñooñu am na peut-être ñetti téeméer ya nga xam ne euh, cancer du sein lañu am te loolu je pense politique bu bu bu am solo la pour gën a dimbali askan bi ñu ñu ñu faju exemple bu ñu lay joxe wax naa la sànq pour saytu. disponible médicament yi dañuy def supervision ci ci ci kër euh, kër docteur yi euh, ñaari exemple yu mu mën relater peut-être yow soo demee def euh, interview wala reportage di nga ko di nga ko observer am na malade bu ñu wax que ni moom su doon ñëw hôpital pour faju ci wàllu cancer du sein suñu doon jógee këram 200000 mille indi. pour mun faju léegi suy jógee këram di ñëw 4000 francs lay yor donc loolu am na njeexital bu am solo ci wàllu faj bi am na sax jigéen ñi nga xam ne ñoom arrêté woon nañ seen chimiothérapie donc faju nañ faju nañ faju nañ ba sonn su ma nee sonn mooy ci wàllu koom ci wàllu ñëw ñëw amatuñu lu ñu fajoo toog seen kër mais chef de l'État bu mu décidé que ni day rendre gratuit chimiothérapie cancer du col cancer du sein si lañ dellu si si structure de yi donc loolu vraiment lu am solo la lu ñuy rafetlu la et ñu ngi liggéey aussi pour ci kanam wolof dafay wax fagaru moo gën faju yéen itam ci fagaru googu ngeen di woote euh, fagaru gi li koy euh, xëy na jëmal bokk na ci dépistage teel a xool sa yaram euh, place su dépistage ci xeexu cancer loo ñu ci mën a wax. mais dépistage moom vraiment mooy pierre angulaire pour xeex cancer comme wax naa la ko sànq mooy cancer luy wér la donc. maintenant suñu nee luy wér la nag parce que gis nañ ne jafe-jafe bu ñu fii ci Sénégal ci wàllu faj cancer <clears throat> mooy nit ñi dañuy ñëw à un stade assez avancé euh, dañuy xaar ba feebar bi daanal leen wala feebar bi law sa yaram ñu soog la gis mais gis nañ ne cancer suñ ko teelee gis cancer du sein particulièrement dañ la faj loo moo tax euh, nguuru Sénégal à travers euh, ministère de la santé de l'action sociale dafa bëgg li ñuy wax intégrer cancer du sein ak du col dans les soins de santé primaire mooy ki nekk bépp gox foo mën nekk Sénégal euh, ñu mën la defal dépistage cancer du col wala détection précoce cancer du sein maintenant comme cancer du sein la waxtaanee tey ñu ñaax askan bi jigéen ñi particulièrement mais askan bi yëpp Euh, jigéen ñi def lu à un certain âge ñuy wax tey jigéen soo nekkee sa kër mën nga di yow sa bopp di xool sa ween yi euh, am na na nga xam ne mën la ko jàngal suñu ak suñu suñu suñu ñi nga xam ne suñu collaborateurs yi ñi liggéeyal aussi si gox goxaat yi euh, tàmbali nañ ko pour jàngal jigéen bi naka nga mën observer sa sa ween naka nga mën seet yenn yenn anomalie yi ndax amul sa ween soo ko teelee gis nga teel a dem si kër docteur euh, ñu ñu ñu xool lan la fekkee cancer la ñu teel ko diagnostiqué euh, teel ko faj am na leen aussi la nga xam ne mooy euh, examen sénologique tey nit di ñu dem si centre de santé yi si poste de santé yi si hôpitaux yi pour faj beneen jàngoro mais soo nekkee jigéen même soo ñëwee pour faj beneen jàngoro dafa jaar ko nga xam ne mooy docteur bi wala mooy ka nga xam ne mooy lay faj moo xool aussi sa weñ ndax amul benn anomalie boo xam ne suñ ko bàyyee noonu ëllëg si biir mën na la euh, jural loraange et puis suñu gisee yenn anomalie yi pour conforter euh, wala pour am yenn orientation ñu euh, par rapport ak femmes yi nga xam ne éligible nañ ñu prescrire la nga def mammographie particulièrement pour les femmes ñi nga xam ne seen weesu na ñeent ñeent ñeent ñeent fukk Euh, yaa ngi wax sànq ne cancer comme yeneen feebar yi la mais gis nañu euh, taux de mortalité bi maanaam ñi ciy faatu téeméer boo jël juróom-ñaar fukk la 70 pour euh, lan moo waral faatu googu takku ci ci cancer. waaw loolu laa expliqué sànq mooy. këni ba exactement donc ñi ci suñu xaaree ba bon si nasaraan dañuy wax cancer mën na am ay métastase et cetera mooy cancer du sein mën na dem jàpp beneen organe law sa yaram mais soo xaaree ba ñëw si si si yenn stade yi. c'est assez compliqué pour que ñu ñu ñu ñu mën la faj ba nga am si ba nga am si wér mais suñ ko teelee gis ñu xam ne cancer bi kat fii la yem wala cancer bu ndaw la teel nañ ko gis nañ si am euh, ay taux de ak ay taux de yoo xam ne euh, yu am solo la. xanaa octobre rose bi di ngeen gën a yokk sensibilisation bi pour que euh, soxna yi gën di mën a fagaru. nañ ko yokk nañ ko yokk si octobre bu baax a baax a baax mais man li ma faral di wax mooy xeex cancer moom octobre naam dañuy yokk. mais xeex cancer ça va être du 1er janvier au 31 décembre saa su ne dañu war a taxaw thème xeex cancer comme ni mu ko waxee cancer du sein encore cancer du col euh, yooyu ay cancer yi nga xam ne yu vulnérable la non seulement ñoom lañu gën a ràññee si suñu suñu suñu suñu suñu réew mais vulnérable mooy tey ñu ñëpp suñu décidé que ni dañuy xeex cancer bi euh, def la nga xam ne waa ko docteur digal nañu ko cancer bi nu am tànku ginnaaw yu am solo jërëjëf docteur Babacar Gueye ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey fàttali ni yow yaay directeur de la lutte contre la maladie ci ministère de la santé et de l'action sociale.